question pour, pour, au même moment Sénégal nous avons que en tout cas une partie de l'opposition euh, respecte que euh, de état de droit euh, peut-être nous ngi que dañ une ko euh, président de la République taxaw Dembe, ci discours adresse à la nation euh, tendre un peu la main aux forces vives de la nation à l'opposition en quelque sorte pour un dialogue peut-être sincère est-ce que mon n'est que dialogue boobu l'opposition opposition bon balaa may répondre damay répondre un petit ci position suñu invité bi tamit sama camarade invité bi xam nga problème bi mooy Ousmane Sonko dafa am ñoo xamante ne dañ ko mënul supporter dafa xajul seen xol te dañ ko bëgg maanaam moraliser si benn communication te loolu tamit il faut ñu leeral ko Sénégalais yi quoi parce que toog fii def sa rhétorique def say discours et tout indi politique à politique à l'ancienne pare bëgg ko imposer comme si c'était la sagesse dans le pays là loolu mënta dox dëkk bi dafa toll foo xam ne instant bi ne li am si yeneen dëkk yu ñu wër maanaam cette euh, lutte contre le système bi nga placée placé de façon peut-être militaire certains nu le euh, comment dirais-je coup d'état ci sommes bi sommes suñu Il y daf na culture politique on va toujours vers la démocratie on va toujours vers le vote et vers euh, le président élu c'est le même combat que ça soit Guinée que ça soit Burkina que ça soit Mali moi am Sénégal mais de façon intellectuelle de façon paisible et de façon politique xam c'est militaire maintenant pour relever le niveau du débat xam nga pour relever le niveau du débat débat c'est à l'ancienne débat c'est 63 ans derrière donc ça veut dire que instant n'est actuellement dans l'actuel et moi, je suis dans l'actuel instant maintenant pour répondre c'est bon Non, j'ai dit merci beaucoup parce que vous êtes adressé à moi. Il n'y a pas de problème. Je vous assure, je ne vous rejoindrai pas là-bas. De rien, c'est gratuit. Il n'y a, rien de bon là-bas, je ne vous rejoindrai pas. Il n'y a pas, de problème. parce que le niveau n'est pas, pas pareil. Donc, voilà. Maintenant, euh, si cette question, euh, le fait que le président tend la main à l'opposition, bon, si dialogue. Pour moi, le euh, président, nous tendre la main à l'opposition. Il y a une invitation 4 avril. Pendant ce temps, yenn nu mu tuddati euh, siège de parti ay auto gendarme ma ko ba nga xam ne borom siège yi sax mënuñ foo dugg et tout par contre man sama position bu intelligente su ma ko mënee xalaat mooy dama foogoon dama gëmoon ne peut-être que opposition bi mënoon nañ am benn posture de négociation surtout par rapport ak xale yi ñu jot a tëj prison parce que xale yi ñu jot jot tëj prison maanaam appel au combat politique moo leen génnee loolu moo tax ñu dugg prison donc pour man mënoon nañu être dans la négociation de conditionner seen présence peut-être ci invitation bi en échange que ñu génnee xale yi parce que aussi tamit non, boule, boule, boule, pour rien. je ne parle pas de loi, je parle des détenus politiques qu'on doit régler avec des problèmes politiques politique dafa ànd ak négociation politique dafa ànd ak waxtaan Macky Sall su demee ba woote dialogue parce que xam na ne que dialogue mooy politique que xam na ne dialogue mooy négociation maanaam soo demee ba dëkk nga diriger ko maanaam mu am benn tension il est normal que nga woote dialogue dialogue bi y a des contreparties il y a ce qu'on appelle des compromis bon juste pour tester. mais non c'est euh, pour si débat mes causes personnelles yu Sénégal pour mais posez-moi. ma da la phrase après pour répondre à que opposition bi mënu nañu am ben taxaway bo xamné ne ak stratégie bo xamantene ci appel au dialogue Macky Sall ci invitation Macky Sall mënoon nañ ci fexé xalat xalé yu ñu jot a prison ñu fexé nu leen génné parce que tey plus de 600 jeunes yo xamné manam ci wéru koor bi seen yaayi sonu sonn seen papa yi sonn et tout il est temps que opposi opposants yi am ben xalat bo xamné war nañ mëna libérer et c'est noble et c'est normal man lool moy seen position ci lool maintenant quand à que Macky Sall ku dialogue il le fait de façon officielle mais officieusement wul né bëgg nako parce que dama gëm né Macky su bëggone dialogue très sérieusement amna ay émissaires yo xamné yag nañ juggé ci camp opposition bi dem di ko gis mais musuko koo nangu dafa yag gëm ne il va à la confrontation ça y génnee taxaw au public défier intimider nappaate wane nekk instant il est carrément armé il est carrément prêt donc loolu kessa la maintenant nak dialogue bi est-ce que opposition bi restante ko si peut-être opposition bi suñu suñu dégloo discours peut-être que fii demain inchallah allah dañu génne communiqué comme quoi pour dire soit on refuse le dialogue ou bien on répond au dialogue loolu kessa ma protocole bi. Mamadou c'est-à-dire aujourd'hui il y a Gumsabok, il y a Yewi. Euh, L'Union ñuy de plus en plus ñuy dem Sénégal Nous dem ci ay il faut partir quand même il faut ngeen bokk ci ay coalition sa n'ai ci ci fan la Je n'ai pas encore décidé d'aller en coalition mais je dirige mon mouvement national sénégalais j'ai une vision politique j'ai un programme politique te maa défendre. Maman, Ok, c'est la. alors je man fi pas bëgg ñëw ak ak yow je pense que ni affaire manifestation euh, tay pour un peu changer système bi est-ce que euh, mënu leen jeunesse par exemple ci une forme de de de lutte bo xamante c'est basé ci ay idées manam mo am ay débat d'idées parce que ñun hmm. euh, bo waxé jeunesse ça me concerne ça concerne Jeanne ça concerne Nafi parce que ñun euh, nouvelle ère bi quoi ak ñi nga xamante ñi ngi sétane mais est-ce que tay waru len imposer. Euh, jeunes yi ci ay débat d'idées c'est-à-dire mu am fondement boo xamante ni fii la ñuy fi xam nañu mais buñ leen déggee dinañ xam ni fii la ñu jëm. Mm-hmm. mais xam nga débat d'idées yàgg na am ci politique et je pense que ñun ñu nekk ci opposition bi ñëpp. ku si nekk donc yéen seen système bi ngeen di incarné. yéen ngeen andil ñu c'est-à-dire li ngeen bëgg Sénégal doxee ko fii ak 2024 moi je parle de ça parce que tey boo jugee 2019 nekk ci système bi. 2023 et 2024 nga génn système bi am lu poussé à ce que nous génn ci système boobu alors li la fa est-ce que mënoo ñu ko imposer ñun ci ay idée c'est-à-dire ci ay dialogue ci ay waxtaan boo xamante ne ñun dinañ mais pas que mu fondé ci euh, parce que da nga ma da ma politiquement moo mais Sénégal ku fi politique fii laa la wax je dis bien ku fi politique à part Macky Sall nangul nga ma sama xam-xam parce que consultant politique là, on me consulte sur des affaires politiques si de et je dis ça je le dis fièrement ici Tu ne vais la wax tour mais je ne lay wax ñu fi bëri ñu ngi conférence de presse maa leen liggéeyal conférence de presse nous avons beaucoup de ngi toog fii def ay sorties man maa donc il faut que tu ma nga xam ma da ngay dem YouTube nga tapé sama mon tour. Tu gis toutes les émissions tu verras tous les arguments que je pose comme un candidat de l'antisystème comme un candidat du nationalisme sénégalais donc il faut nga xam ma que maintenant, là maintenant bu un débat d'idées kenn ëpp ma di idée ci arène politique bi fii nii Sénégal je suis le plus jeune ñu fi nekk ñëpp ku si nekk bëgg nga ma am sa ginnaaw mais gëm sama bopp gëm sama idéologie gëm li ma bëgg ci Sénégal moo tax nangu ma range si kenn maintenant nag am naa ci ay xarit am na ci ay grand frère maa ngi waxtaan ak ñoom. Euh, ci ci fi nga jaar puisque wax nga wax nga wax nga sa jaar jaar bi ñu ci gën a jàpp mooy bi nga mujjee. muy euh, parti réew mi. voilà mos a nekk. mos a nekk alors euh, tey gis nañu li nga xam ne moom moo fa am. Euh, euh, Diatara ministre des sports bi nga xam euh, dindi nañu ko ci numéro 2 bi mu nekkoon ci ci parti réew tout après daanaka ay ay waxtu rek le président Idrissa Seck def un communiqué waxtaan pour souhaiter à askan wi fête d'indépendance wax ci li nga xamante la ci wax également jëm ci ne ginnaaw Macky Sall indi Coupe d'Afrique man maa ngi quatre di 4 ans pour nous, une Coupe du Monde effacé encore un autre poste boo il est allé plus loin il a parlé de l'environnement il a parlé d'autres secteurs en plus également du sport que les Sénégalais pour pour ñu dénk Koko. ko C'est idée ak sa xalaat bi nga tàgg léegi ci sa bop. yow naka nga jàngatee loolu. bon ni moo ko ci peut-être euh, comme Idrissa et Maki, et Idrissa et Yanko Diattara la comprendre bon si Idrissa et Maki, xam Idrissa instant bi nii so, taxaw c'est l'unique candidat éligible du système urbain. Sauf que tous les autres candidats pro système ils ont des problèmes judiciaires Bassi si Macky il dit instant c'est l'unique candidat du système maintenant am na dit que diggee woon ak Macky Sall pour diriger la coalition Benno Bokk Yaakaar te li ma gëm mooy que du ko mës a parce que Macky Sall xam même dafa déclaré du ma dem pour une troisième candidature Nous, Idriss Seck lay pour jox ko Benno Bokk Yaakaar c'est clair parce que Idriss, le mérite bi te cheminé wu ko aussi liggéeyu ko donc voilà. ça j'ai pas compris. Idrissa liggéey yu ko amul mérite non parce que pourquoi parce que biir APR. Ah Amadou Ba Amadou Ba méritant pour diriger Benno Bokk Yakar, même si que je suis pas pour APR Ali Ndiaye moo gën mérité pour diriger Benno Bokk Yakar. pourquoi Idy wala jóge fële rek parce que c'est le candidat du système hydraulique dafa am ay gaz yoo xam daf ko ko est-ce que aussi du du lu ñu war a respecté dina nekkati mérite ok bon de toute façon loolu sa njort mais je suis sûr et certain que même bu qui joxee ay gaz Idrissa du lu muy respecté loolu c'est sûr maintenant Idrissa pour man euh, dafa biddanti en fait quoi je m'explique biddanti mooy nga tollu fi nga xamne que fofu la le sénégalais yi meuna gëna bayé xel wala gëna truqué nga dem and ki nga xam mo nga doon xeex xam nga man j'ai l'habitude de le dire man Idrissa bàyyiwuma ko dañ taxone fenn di xex mom mo quitté le champ de bataille dem fekk ñu doon xex donc c'est comme ça légui nag dem na fa xam que ni instant bi ni ñu mu yobale ñep la moitié ils vont pas le suivre su ba Bassi Diattara en fait pour parler de lui. le savait il savait que Diattara du ko mës a c'est ce que vous voulez dire. non peut-être ba muy dugg xamuko mais légui xamnako parce que instant bi su génnee destituer Diattara et tout Madame, c'est pour prendre les devants loolu que la parce que honte bi bi mu Madame, mon mot moom def déclaration mu et tout ñu xam est toujours ministre Alissa est toujours ministre mais Diattara instant bi nii Idrissa mënu ko yokkal dara parce que ambition Diattara fenn la plafonné woon muy Madame, ministre je def na ko deux fois ci gouvernement donc pourquoi muy génn maanaam di errer du chemin politiquement ci Idrissa amul sens am le ful la toog su ko vous êtes en train de minimiser vous ñu la déggee Idrissa Seck ak fi j'analyse politiquement Il ne faut pas amener le débat dans un côté émotionnel politicien là je suis un homme politique j'analyse politiquement Donc, ma question me poser le politiquement ma relation personnelle c'est ma relation Idrissa man ak sais pas. suñu bindante wala mais quand je suis publiquement là je dis honnêtement et foncièrement et sincèrement les ma c'est ci analyse. en tant qu'analyste alors en tant que non en tant qu'analyste j'ai déjà analysé c'est fini. je termine alors. ok est-ce que jàppoon ne euh, bu présenter ne candidature am Idrissa Seck mën na quand même ñeneen ñoo xam ne dañu bokk ci système bi ñi nga leen jàppee ñu nekk ci système bi nekk ci euh, pouvoir bi mais ils sont des anti troisième candidature. nag mën nañu yóbbaale. Idrissa dafa nar a génn après des huit rek ci ci langue politique bi. franchement lolu ku am xam-xam jaru sax ngay def science politique wala pour pour remarquer ko parce que mooy li ma wax xam nga man j'aurais compris que Idrissa par la forme bu mu duggé ci Macky Sall mu joxé directeur joxé ministre téye boppam parce que c'est ce qu'il c'est ce qu'il a fait en 2012 xam nga 2012 mom dafa and ak Macky Sall voté ko mais Macky da ko bëggone fal mi ko non naa la jox peut-être ministre at ay ki mais gérer lolou la def par la formule mu joxé manam Covid bi maintenant nag instant bi il se cherche une formule pour guen ci coalition bi parce que génn ci coalition bi lenn moo ko ci mën arrangé maanaam ñu ne oui Macky Sall dàq na ko et tout mais loolu lay xaar Macky du ko ko may moom moo war a déposer <laughs> démission certainement def déclaration am ne instant bi nii génn il est candidat maintenant il le fait à petit pas pour essayer peut-être de tester maanaam ñit ñi nu ñu koy jàppee nu ñu koy xaaree et tout mais li ma la wax rek dafa nar a wéet rek ci làng ji parce que Idrissa instant bi nii sondel bu jeex la maanaam mi ngi tàkk ci suuf mais finalement day tëdd alors mais bu ñu ñëwaatee ci yow sa génn ci parti réew mi en 2019 wala après sax mooy bi mu duggee ci gouvernement président Macky Sall est-ce que du frustration la ndax choix bi mu def ci deux ministres kenn ki di Diatara kenn ki di Aly Saleh Diop muy yow muy Déthié Fall yéen ñi génn après son entrée dans le régime de Macky Sall est-ce que euh, problème de post moo leen métti ba ngeen génn. non du tout problème post moom très sérieusement xam nga ki ki la ne maanaam demal ci télé. di wax di ma défendre nga bañ kon poste sonal la man Idrissa musuma sonal musuma ko sonal ci ay poste et tout hein. man loolu nekkul sama ambition xam nga man li may nekk ci grand Idrissa yëpp j'avais mon programme pour le Sénégal j'avais mes idées pour le Sénégal idées yi nag ma koy partagé ak Idriss Seck et je voyais que c'était des idées yoo xam maanaam gëmu ko parce que il est libéral il pense comme il veut moo tax chaque fois suy jël décision da koy jël de façon très personnelle ba muy génn dafa ne commencement bi mu ne dafa ne décision mu jël c'est une décision personnelle xam nga ki jël décision personnelle mooy maanaam sóoraalewul ñu mu àndal sóoraalewul sénégalais yi moom boppam la décider

amul kenn aussi su jaaraatee foofu moom it du li ma la wax sànq laa lay waxaat dama ne la. Idrissa kenn waru ko. li mu mënal Pape Diouf mënal ko Omar Sarr mënal ko euh, nu mu tuddati Yankhoba Diattara xam nga lan la maanaam fal leen ministre kese wala directeur wala leneen yàlla def na am nañ ko donc Idi mënatu leen yokkal dara léegi logiquement nañu waxante dëgg quoi pourquoi Diattara war a bàyyi ministère am dem pour chômer encore politiquement au nom de quoi. au nom de de ne pas trahir Idrissa ñaata de doon trahir Idrissa man de ma trahir dafa trahir Déthié Fall dafa trahir Abdourahmane Diouf dafa trahir ñeneen non parce que dañ doon xeex lu ñu gëm mu yeewu ne liñ ñu doon xeex gëmatuma ko damay dem fu ñu doon ñu ñuy xeexal loolu trahison la lan ban trahison moo gën a mag au contraire moom il est en train de payer sa trahison Idrissa Seck parce que daf ñu trahir li ma la waxoon dëgg la man fi ma bàyyi ak luñ ñu doon xeex ba léegi fa laa taxaw mais moi, moi dem bàyyi ma fi. alors Ndeye Fatou une dernière question peut-être pour euh, euh commissaire euh, la tenue dem nag. Euh, oui, le commissaire moi.